ñàkk way juróom muy Ibrahima Cissé moom mu may ñawal yi yëpp may sol euh, tey lañ ko doon denc Touba yàlla na yàlla yërëm way juróom boobu noonu te dugal ko ci ajjanaam yi gën a kawe Ibrahima Cissé maa ngi lay jaalee ci tuluwaa jàkkaarloo yëpp ah bu may ñëw ci li nga xamante ni mooy li am mm-hmm. Der balaa ma signalé loolu ku bëgg jàkkaarloo mm-hmm. Mamadou Sow la tudd mm-hmm. nekk Paris xale yi nga xamante ni dee nañ taset mhm. ci njabootam la parce que ci famille boobu la bokk bi ma envoyé message wax ma ko mhm. sama yaram dafa daw xam naa dinañ ci ñëwaat waaye l'indiscipline des chauffeurs mhm. ak li xew ci tali bi war na am ay enquête ñu topp ko ay oto yuy dàqante ba ñetti xale dee loolu Mamadou Sow ak njaboot bi yëpp ci turu jàkkaarloo yëpp ñu ngi ñetti xale dee ci non ma ak blessé yi sax yu grave vraiment dañ ko mujj amputé taset moom dëj boobu lu mettee ngi noonu Mamadou ñu ngi lay jaale ci tur waa jàkkaarloo yëpp ak ñi ci kanam dinañ ci dikkaat waaw donc der der man dafa am lu ma yàgg gëm mhm. man may borom il n'y a pas d'alternative à la justice ma gëm ko depuis may toog fii jàkkaarloo dama ko mës a dëggal loolu mhm. der dama gëm ni pouvoir yi gis nga exécutif dañuy dem élection ñuy ay politique dagaan baatu askan bi ñu fal président de la république mu fal ay jëwriñam ministre politique la malgré que légitimité la lu légal la tamit waaye politique la mhm. parlement bi ñuy bokk lu am solo la waaye dañuy dem dagaan baatu askan bi ñu fal leen foofu it politique dafa amaale saf fa sàpp mais dafa am lu tudd pouvoir boo xam ni mooy pouvoir judiciaire saa yu ñu taxawee fii chaque fois mooy wax ni mënuñu ndërmeel suñu justice qu'il n'y a pas d'alternative à la justice parce que li ma fi waxoon keroog gars yi di ma ree albisaan justice mooy balance bi mooy liy équilibré. ni nga ko waxee woon la mais ni boo waxee woon nii ko <laughs> waaw kon kon ah. justice. amala ah, <laughs> keroog da nga ne woon almisaan. <laughs> ma ne ko non xam nga ni ma la bëgg a wax. ah nii nii nii nii boo ko waxee du ñu am. waaw donc dama ne woon almisaan la balance. Euh, suñu borom. bi waaw bien passé vraiment. Euh, ni ñu jéem a impressionné yooyu <laughs> albisan arabe ak albisan olof ah. <laughs> waaw léegi dama ni justice mooy la balance mooy équilibré boo demee di taxaw buntu tribunal bi balance bi ngay gis mm. dafa am solo yii ñuy def lu ci bari ñooñu dañuy taxaw assermenté waat du lu oyof jàpp naa ni du mbiru ay politique parce que dafa war a téye lu dëgër donc man li ma gëm mooy l'administration Sénégal warul mën a fragiliser décision boo xam ne justice jël na ko administration ni du ko respecter pour man loolu c'est un précédent très dangereux décision bu justice jël administration wu Sénégal da ko war a appliquer nan la koy appliquer man ba dara gëm naa ni on peut appeler les les ñu wax na boroom xam-xam yeeg yooyu wax ah mais gëw ma ni pourvoi bi li ma gëm mooy le pourvoi là ne pas suspensif pourvoi bi par rapport ak Ousmane Sonko jot fiche parrainage am le pourvoi n'est pas suspensif man loolu laa gëm parce que dañu énumérer yi nga xamante ni buñ ca bu bu ko nit nekkee ci situation boobu ci la pourvoi bi du suspensif énumérer nañ ko jàpp naa ni nag ñëpp mën nañu bañ a respecté yoon mais état mënul ñàkk a bañ a respecté yoon parce que yoon mooy fi ñu toog ñun fi sookul bi ñu fi ñu wéeru li nga xam ni mooy téye cette république là yoon la donc décision de justice administration bañ ko appliquer nga liir communiqué boo xam ne da ngay xam ni lii ay dilatoire ak ay lay la lay nuróol c'est pas bon du tout et loolu baaxul ci am réew et lii mbirum élection la élection ku xam élection dëgg xam Afrique élection dafa am danger bu grave bu ci nekk bëri na dëkk yu tàkk élection moo ko taal man dama gëm ni dañu war a respecter décision wu justice sama kàddu démb nag mooy sama kàddu tey parce que Sénégal des fois da naan c'est le maanaam le monde à l'envers daal ni naan nag a ngi naane geenam Sénégal des fois politique yi doo xàmmee kenn ki nga taxawaloon mu nekk pouvoir ngeen di àndandoo di wax di décision de justice lu ñu war a respecter la appliquer lo kooku kooku tey mooy taxaw di défendre ni pour pourvoi bi dafa suspensif te mu leer ko ni lii muy defendre ni man gëm naa ni taxawul ñeneen ñi taxawoon ni la gëwuma justice dootuma déglu justice ñooñu ñooy taxaw tey ànd ak yow pour respecter loo justice loolu mooy dëkk bi ñu nekk kenn xamul ban xeetu dëkk la maanaam Sénégalu paradoxe la ñun yi nga xamante ni ñooy toog tey de manière équidistante di wax li ñu xalaat da ngay xool rek ci même sujet yi bu tayee yaag pouvoir ay ànd bu subaa yaag opposition yéenay ànd parce que ku ci nekk ci ñoom par rapport ak justice ni mu ko arrangé la koy défendre mbaa mu mbaa mu jël décision bu ko arrangé wul mu xarab ko mais le juge si fay jël na décision motivé na ko ak nu mu ko mën motivé même bu dee yow da nga koy attaqué en tout cas moom motivé na ko li mu motiver wax na ko bind ko noir sur blanc pour ñu réintégrer Ousmane Sonko DGE dafa war a réintégrer Ousmane Sonko ñu jox leen seen fiche mais lii ma gis nii ci communiqué bii ñu bind ko man dawul sama yaram man baabu ma man Sénégal nag dafa am lu fi jafe xam lu fi jafe moo et comme ça am fitu toogoon fii ni dis justice kenn du ko fooyee Ousmane Sonko demal wuy ji am fitu toogaat fii ni DGE tey li ngeen def tegoo leen ko ci yoon jox leen ñii seeni fils de parrainage équidistant boobu moo fi jafe bëri na ñoo xamante ni démb ñi doon wax tey nañu respecté décision justice ñoo doon wax Ousmane Sonko bul wuy ji parce que ñoom faale wuñu woon justice moment boobu tey ñooy défendre loolu bëri ñuy wax tey non dañu war a xaar ba procédure bi jeex te mu leer leen ni Ousmane Sonko tey dañ ko war a jox fiche ñooñu ñoo doon ànd di défendre de justice moment boobu tey ñooy wax ni décision bi c'est suspensif et mu leer leen ni demewul noonu le président de la république nag déclaration yi mu def bi ci ëpp solo mooy bi muy taxaw di wax ni askan wi man duma dem nekkaat candidat ñu taxaw fii félicité ko ci ñun ñëpp dafa am lu mu ci toftal mooy les décisions de justice dinaa def sama kéemtalaay kàttan pour ñu respecter ko appliquer ko bii dara gënu koo doon décision de justice boo xam ne dañ koo war a appliquer après nag la procédure suivre lu procédure bi joxe ñu xam ne loolu la procédure bi joxe mais Sénégal dafa am lu fi rafle mooy prendre des décision à des moments yoo xam ni décision bi day impopulaire nga défendre ko. oui yow gëm nga ni que c'est suspensif. le recours man dama gëm ni le recours n'est pas suspensif dañ ko war a jox. fiche de parrainage. ah ok ah ok waaw waaw. ah oui ah, oui man en fait man man. loolu laa wax dama ni. tu avais dit tu avais dit le contraire. non non lapsus la woon li ma wax dafa leer. non non dama ni. suspensif le pourvoi. waxuma retour. tuddul lii xoolal lii pourvoi la en cassation. oui. dama ni le pourvoi li ma gën man n'est pas suspensif ah, uh-huh. maanaam ci leeral mooy dama gëm ni pourvoi bi ah. warul tere même bu procédure bi continuer du tere ñu jox ko Sonko fiche parrainage am parce que pourvoi cassation euh, malal njàngum ñu fi njàngum droit mu sori de mais dañ lay wax pourvoi cassation dafa am yu ñu la limal ni yooyu bu ko nekkee dafay suspensif ak yoo xam ni concerné wu ko mais mais man gis nga nag moo tax may ñëw ma li may wax dafa am importance parce que xam nga lu tax. dëkk bi. il faut nit ñi di di di jël ay décisions yu yu yu yu ñuy am fitu jël ko à des moments donnés ndax pour sauver ce pays. gis nga jour bi may toog fii di wax ni Macky Sall mi ma gis il ne sera pas candidat. nañu bàyyi force nit ñi ni day doon candidat bëgg a taal dëkk bi waxoon ko c'était très impopulaire. jour bi may taxaw fii ni Ousmane Sonko ak lu mënti am na dem wuy ji yoon waxoon ko c'était très impopulaire mm. même chose laa lay wax tay ni la pour pourvoi bi en cassation li ma gëm mooy ce n'est pas suspensif et respecter lii mm. day tax ñu nekk ci état de droit ak yoon ñàkk koo respecter malal dafay indi administration du fouler au li nga xamante ni justice su réew moo ko dogal léegi nag Charles dafa foofu rek laay daaneel wax sànq lu am solo mooy boroom xam-xam yi wax boroom xam-xam yi des fois tamit nga comprendre leen tuuti metti na trop Charles du li nga mën a dékku la ñëpp mën a dékku mm-hmm. dans ce pays aussi dafa am affaire bu ñu def mu marché ci ñenn ñi mm-hmm. mooy ku wax sa xalaat ñu saaga la ba sa njaboot mi la noppi tey mm-hmm. man doomu professeur Serigne Diop laa sama papa la bi ma ko mujjee seeti wallaahi ñuy waxtaan dañu ma badal ruus nant ay médecin di def diagnostic ñëw di ci wax man Serigne Diop ma ñëw ci professeur médecin yi naan leen lii ak lii la résultat yi joxe mhm. mais ci droit dam daf ci maanaam da ngay xam ni daf ci qualifié wallaahi j'ai eu la chance man sama papa Serigne Diop professeur Serigne Diop ak mi ancien ministre des finances Abdoulaye Diop ma toog ak ñoom waxtaan yàggul ma xam ni ñun war nañoo taataanaat lu bari. mais tey man Badara xam nga may saaga ngay saaga buubu ñun am nañu peut-être benn force boobu attan ko amul problème mais ces sommités là. tey par exemple bu mënoon a xëy tey di leen bashing ak di leen saaga dafa dafa am affaire bi dem ba. dafa tax ba boroom xam-xam yu bari tey ñemeetuñu wax. Mm-hmm. mais je le réitère pour nit ñi bokk. Mm-hmm. bu dee comprendre luñ comme mm-hmm. Malal Sam. ce que j'ai dit c'est clair. net et limpide. pourvoi bi en cassation. man de Gadiaga li ma gëm mooy c'est pas suspensif. Mhm. Ousmane Sonko dañ ko war a jox. fiche parrainage. am na ñu bëgg réagir ci réaction yi. mais mais mais mais mais est-ce que